may ma dalal sunu ñaari invité yi nga xam ne ku ci nekk ci ñoom euh, yàlla may na la xam-xam may na la dal euh, may na la également euh, un vécu bi nga xam ne saa soo waxee rek dana amal njëriñ Sénégal muy Djibi Gning mii fi toog ak kii di Mamadou Goumbala même bu dee bokkuñu parcours waaye ñoom ñaar ci la ñuy yëngu yàlla daf leen ci ràññale ba sénégalais yi Euh, xàmmee leen saa suñuy wax. Mhm. Euh, bu ñu génnee ci loolu nga euh, ma profité ci ci lii doyen la doon wax sànq. Mhm. ci sëñ Sidi Lamine Niass. Mhm. yàlla na ko yàlla yërëm. te yéexeñu ci taxawaay ga nga xam ne moom la doon am bu doon tey jii mu ngi fii. effectivement loolu nag c'est ça le charme justement de ces grands hommes c'est-à-dire même absent. il continue d'être présent mhm. mais euh, ci loolu noonu ma jàpp rek ne que am na fi tamit euh, ay nit ñi nga xam ne fii ci Sénégal mhm. euh, wax fa dëgg yàlla xëy na si egguñu ci ca dayoo boobu mhm. waaye ñu ngi dox ay dox ya nga xam ne wax fa dëgg yàlla bu ko sénégalais yi xamoon daal leen naw daañ leen gën a jàpp ma ciy profité nag pour rendre hommage à grand monsieur. Uh-huh. waaw je monsieur parce que euh, dama toog ak moom benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon. Uh-huh. Euh, fekk ko ba Daaru Muxti muy sëñ Abdou Mbacke. Uh-huh. ibnu Cheikh Khady. Euh, gis nga situation bi doyen ba Gumbala waxee ba tudd Sidi rek. sama xel dem ci moom may fàttali nii que sëñ Abdou Mbacke moomu. jamono ya nga xam ne ñëpp ngi doon daw féetik Ablaye Wade ca 2010 2011 2012 moom dafa jàppoon ni que dëgg bi dëgg bi dafa féete woon ci Macky Sall ma nga xam ne moom lañ doon jé bun xatal di ko jéem a toroxal may fàttali ni que même congrès d'investiture bu Macky Sall Macky 2000 fii ci euh, jàmmalaay moo ko ubbi moo def ñaan yi sëñ Abdou Mbacké boobu problème yi fi amoon deux mille vingt et moom it moo soloon dàllam dem seeti kii nga xam ne mooy xalif général des Mourides Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér. seeti ko wax ak moom ci situation dëkk bi. te boo bëgg léegi boo bëgg léegi may gis ay jéego yu muy dox ci dëkk bi ndem dana neex ñenn ñi naqari ñenn ñi. Mhm. mais mu koy dox ci dëkk bi donc mhm. loolu il faut ñu koy fësal. pour que sénégalais yi di xam ne que. Mhm. am na ay nit ñi nga xam ne. ñi ngi jóg di dox te li ñuy dox yëpp yëpp yëpp yëpp. njëriñu Sénégal la. xëy na kay dafa am ñu dul déglu. Mhm. am peut-être ñi nga xam ne dañuy déglu te nañ koy déggee aussi du leen arrangé. Mhm. mais en tout cas toujours est que ce genre doom dama jàpp ni que war nañ di fësal seeni jëf. pour que askan gi xam ko quoi parce que chaque jour man mi bokk naa ci ñu naan kilifa diine yi waxuñu kilifa diine yi nañu wax nañu wax nañu wax mais en fait ñu ngi wax xëy na nag à leur façon. Euh, bu ñu génnee ci loolu Pape Maguette euh, ma nuyu kii nga xam ne tey jii bu fi bu ñu doon def émission bi moo fi doon toog. Mmh. muy Cheikh Omar Diagne. mu nga xam ne moom c'est ni nga koy waxee c'est le seul candidat déclaré la présidentielle ba nga xam ne dañ koo tere mu def campagne dañ koo tere mu génn xamanteek ak sénégalais saafonte mu ngi ci biir kaso bi. Mmh. keneen ki muy suma rakk di suma naataango Pape njaay bi nga xam ne nekk ak man fii ci kër gi doon fi def liggéey bu mucc ayib te liggéey boobu euh, malgré euh, tout on essaye quand même de de de de de de faire en sorte que place am euh, continuer di fees fii Walf gannaaw bu ñu leen massawoo ci situation bi ak métit yi nga xam ne moom lañ nekkee surtout seen njaboot ñu leen ñaan rek ñu muñ te lu metti yàggul incha allah rabi daañu génn léegi dellu seen njaboot léegi ñu ñëw ci situation dëkk bi mhm. man damay damay bañ euh, souvent bi ñu naan euh, élection buy jib rek dëkk bi day yëngu mhm. mais dëkk bi bu yëngoo mooy que njubadi dafa am mhm. dëkk bi bu yëngoo mooy njubadi dafa am parce que dañu nekk ci société yi nga xam ne dañ ne c'est des sociétés démocratiques républicaines mooy maanaam dafa am ay règles yow tey bu président jëlee décret daf couvre ne couvre feu ne huit doo génn dootoo génn. kooku ça fait partie des règles. règles yooyu dafa dem ba ci dundu sénégalais yi comme liñ naan élection. mu nekk un droit fondamental de tout citoyen. mais pourquoi bu ñu waree dem élection rek dëkk bi war a yëngu c'est parce que quelque part les règles du jeu sont faussées. et si elles sont faussées mooy que le jeu. bi nga xam ne mooy aspiration démocratique moo war a tax sénégalais yi mën a choisir ne tey jii ñun gumba la moo ñu gënal Pape Maguette c'est que le jeu a été faussé ou quelque part yaakaar nañ ni que ñii nga xam ne xëy na bu ëllëgee daañu voteel gumba la euh, daañu fexe ba ñooñu mën a bañ a am le droit bañ a bénéficier du droit d'aller voter donc yooyu yëpp dafay am mooy benn ñaar ñu ne noo Euh, jibi mii nga xam ne jibi ñing dafa bëgg dem élection ah jibi ñing de jàpp nañ ni que ci nii wala ci nee bu demee élection xëy na mu gañe donc daañu fexe mu bañ a bokk ci candidat yi loolu nag mooy indi situation yi ñuy gis nii mooy tey jii euh, les règles démocratiques dañ koy wax nii rek mais daanaka dans la pratique Euh, am na benn ministre d'état bu ko doon wax fii nee na am na ñi nga ne seen kàddu bu jibee da nga naan ay démocrate nañu oh. <laughs> waaye ci jëf ay vrai dictateur nañu oh. donc muy Ousmane Ngom euh, moo ko fi waxoon oh. mais tey ji boo gisee dëkk bi di yëngatu tey mooy que quelque part dafa am ña nga xam ne dañu jàpp ni que ñoom war nañ dem élection sénégalais jàpp ne que ñii dañu war a bokk ci élection beneen côté bi ñu gis ni que dafa am une machine judiciaire qui est là à chaque fois c'est la perception à chaque fois que ñu ne ah Père Goumbala mii de toll na fii machine boobu dana fexe dana fexe ba Goumbala du bokk donc loolu bokk na ci li nga xam ne day jur jiixi jaxa day jur également euh, une situation révoltante comme ni koy gisee nii. machine yooyu sax léeg-léeg ñenn jàpp ne yoon muy justice daf ci bokk li nga gis démb procès bu mel noonu ñu ne procès la boo xam ne ci mbir viol ak yooyu la mais procès viol bu guddee noonu. ba guddi nit ñi war a tëdd di déglu ñuy suspendre di dugg di génn di ñëwaat ak kaddu yi fay jub ak na mu demee yëpp ak ñaata nit la ñuy violé ci àdduna bi bët bu set donte viol kenn rafetlu ko <laughs> rawatina fii ci Sénégal mais maanaam lan moo spécial ci mbir mi ba ñu mu tiré à longueur comme ça ndax ki ci waroon na ñëw te ñëwu ci euh, finalement kaddu yi fay jub duñ ko jox raison ne moo yey bañ faa ñëw. man jàpp naa ne que sax procès bi waroon na waroon na gën a gudd. trois heures du matin bii mu arrêté. waaw bu doon dafa jaar ci yoon kese waroon na gën a gudd. parce que buñ ne la pàcc bi am nañu neuf avocats muy Ndeye Khady Ndiaye am na neuf avocats yu koy défendre keneen ki di Ousmane Sonko am na trente avocats yu koy défendre boo ko boolee muy trente neuf avocats. Mm. te ku ci nekk ci ñoom am droit à la parole waaw donc man jàppoon naa ni que bu dee jaaroon na ci yoon rek waroon nañu ko def procès bi nga xam ne mm. ça peut se dérouler sur deux parce que gis nañu fii fii ci Suisse fii barki Demba Ndiaye kii di Tariq Ramadan nga xam ne lu mel noonu lañ ko accusé woon procès bi duré na foofu ñaari fan ba ñetti fan sax ñi koy ñi koy ñiy àtte parce que pour bëgg lu leer moo tax ba ñu eggee ci cappaandaw juge yi dañ ne ko yee yaay Tariq demal nga ñu bi dafoo dara mais loolu day fekk justice bi nga poser les éléments de ce qu'on appelle la sécurité judiciaire des justiciables mmh. mooy man mii ngay àtte mu leer ma ne que fu ma jëm samay droit samay samay yelleef et tout dinaa ko bénéficier wu cest à dara dara dara dara dara dara duñ ko wàññi ci samay droit muy benn ñaareel bi la euh, l'attente la man moom bettuma très sincèrement je crois que bu ñu suivre les derniers mes dernières sorties dama ne man plateau euh, procès bi mmh. su ma bokkoon ci ñii di conseil Ousmane Sonko dama naan ko bul dem mmh. Euh, bul dem dans la mesure où euh, procès bi àtte na boppam ci mbedd bi àtte na boppam ca ka nga xam ne moo accusé woon muy Adji Sarr ci ay waxam ak ci ay jëfinam bëgguma dugg ci yenn détails yi mais une chose est mhm. mooy ñii nga xam ne dañuy pratiquer les questions de viol les mhm. questions de genre mhm. les violences sexuelles les violences basées sur le genre ñoom ñëpp cest à jarul nga nekk spécialiste ñoom ñëpp xam nañ ne que comportement Adji Sarr wutee na ak comportement d'une victime de viol. loolu mooy le premier point bi ma wax. beneen point bi mooy pourquoi ma doon ne Ousmane Sonko bu mu dem parce que dama jàppoon ne que dam yóbbu soo ko chambre criminelle alors que ce procès qui ne devait même pas avoir lieu parce que euh, logique pour logique la ca section de recherche keroog bañ ñëwee toog indil këyit gi xool xoolaat fële mbir mi waroon yem. mooy lii maam mbiram di wax tey jii bu doon dañuy àtte aji saar nañu waroon woo tey di ko àtte mais du Ousmane Sonko wala Ndeye Khady Ndiaye dañoo naan léegi nag ci loolu projet man dama jàppoon ni que c'était une manière wan sénégalais yëpp gannaaw biñ ne Ousmane Sonko salafiste la après ñu jóge fa ne ko terroriste la après ñu jógee ko fa ne ko rebelu MFDC la. waaw euh, jógee wax wax wax wax daal cest à wax nañ ko. waa quali jox nañ ko qualification yu bëri. Mm-hmm. te qualification yëpp ndem ñu ngi koy def boobu ak léegi. sottiwul sénégalais yi di gën a ñëw ci wetam. Mm-hmm. donc on s'est dit que quelque part dafa am ñun suñu société ni mu bindoo. mooy la nga xam ne c'est dañu dañu gëm ne que c'est infamant mm. bu ñu ko tegoon ci ndodd Modou Goumbala mi mm. ñëpp génn ci moom donc dañu àgg foofu moo taxoon nag ce procès là am procès bi pour lan la woon man amoon na fi mm. tey la preuve a été administrée hier mooy que li ñu bëggoon mooy wan sénégalais yi wan kilifa yi wan la communauté internationale ne que kii di Ousmane Sonko c'est un pervers c'est un psychopathe à la limite je dis à la limite mm -hmm. moi j'ai hier xam ndax lan j'ai eu honte mhm. parce que dama jàpp ni que ce genre de procès mhm. ne serait-ce que pour la protection des mœurs de nos enfants ñun mhm. suñuy doom ce procès devait être tenu à huis clos <laughs> bu dee dañu respecté dañu respecté ñun sénégalais parce que kaddu yi fa jibee kaddu yi fa jibee démb wax fa dëgg yàlla je suis sûr et certain que amoon na ay kilifa yi fa toogoon mais ils ont même regretté ils ont regretté déplacement parce que Bara Dolly moom bi mu génnee nee dafa rëccu sax lu mu fa lu mu fa toogee voilà ils ont regretté de faire le déplacement mënu fa toog voilà ma